bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi noo ngi yëkkati kàddug nuyoo gu ànd akob ziyaar mu bàyyi ko ci sunu kilifa gu baax gi di Cheikh Mamadul Fadil moom Cheikh Mourtada ak njaboot gi mu àndal ñépp di soxna maam Xarim Mbàkke moom sëñ Mourtada di Cheikh Abdoulahi Rawaay moom sëñ Mourtada ak mboolem njaboot gi mu àndal ñëpp limoon nañ ko léegi ci délégation bi ñu ngi yëkkati ab nuyoo di ko jëmee ci mbooloo mi waaye jaare ko ci sëriñ Cheikh Oumy Mbacké moom Cheikh Abdoul Fadil di ko sant bu baax a baax ci taxawaay bii nga xam ne yëngu bi lépp ci yàkkali ak yaatal rekk la jëm liggéeyab sëriñ Touba Xaadimu Rasuul cheikh Mouhamadul Fadil nag ñëw na teewal fi kilifaam yàlla teg ci bopp njabootu sëriñ Mourtada muy sëriñ Mamor Mbacke Mourtada ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ Mourtada gépp bis bii di bis boo xam ne mu ngi dox ci njabootu sëñ Touba ba ëgg si tey ci kër sëriñ Mourtada sëriñ Mourtada nag di koo xam ne defe naa bu ñu fàttali ko ci dundam tuuti rekk daana nu doy sëkk ab yóbbal bu nu jëme ba ëllëg moom day dundam joxoon na lépp sunu boroom te jaaxal na ko itam ci toolub lislaam lislaam moo di ay waxam lislaam moo di ay jëfam lislaam moo di ab yëngutoom lislaam itam la jox alalam lislaam la jox léppam ba desewut dara moom Cheikh Amadou Mourtada taxawaay bi nga xam ne sëriñtuwaa amoon na ko ci yaasal sunnas rasulullahi sallallahu alayhi wa ba mu jaralaan ko dékku la mu daan dékku lépp ci ay jafe-jafe ak tase ak la mu daan tase lépp ci ay nattu looli Cheikh Muhammadul Murtada jël na ci gopp boo xam ne waar wi fii la ko tàmbalee ci Sénégal di ko bay ba génn ci réew yi nu digalool di ko bay ba jàll ci réew yi Europe ya di ko bay ba lislaam yaatu fa yaatuwaay boo xam ne jéggi na dayoo fi nu toll loolu lépp lu ñu ràññee la ci lëggéeyab Sëriñ Murtada ba mu xamee ne it diine ji nu nekk du diine yi làmbutu du diine ju nuy takk ak ak teg ci am xel diine yi jàngal ak sàkku xam-xam di jaamu yàlla ci yaqiin la taxaw temm ci sos ay école ay daara ay jànguwaay ci dëkk yi ba amul benn barab booy teg sa tànk ci Sénégal te fekkoo fa jàngukaay yooya waaye noonu la mel ci réew yi ci des yépp nag ba nit ñi mën a jàng mën a am xam-xam mën a tàggu akuk réer mën a teg seenu jaamu yàlla ci aw yoon ndax jaamu yàlla kat faw dafa war a tege ci aw yoon te loola dara mënu ko may nit ki lu xam-xam loolu moo war lan yitteem jépp mu def ko ci jàng ak jàngale mësta yemale jàng ak dara mës la yemale jàng ak dara jàngale ak dara képp koo xam ne am na ci ceew cër lool rek la lay digal sax ci jàng ak jàngale sax ci jaamu yàlla ak lislaam loolu moo waral dundam gi fa tabaarakallaahu gàttul waaye dunduk coon rekk la woon nag ndax âge bi mu tolloon nga ko daan séen ca réewi Europe ya di ko séen ca gaar ya di ko séen ca marché ya di ko séen ca place publique ya fenn fu nekk mu fay teg tànkam di dem cawarteg yaram taxutoon jóg di tukki taxutoon waaye jóg yàq di lislaam rekk moo taxoon kon yàlla na yàlla fayal na ko te nu jàngat nag bu baax a baax ci dundam ndax bis bu toll nii ku ko tudde jëmm faw ñu jàngat aslëf ci ak dundam lu ñu ko mën royee mooy Cheikh Mourtada ku ragal yàlla la woon Cheikh Mourtada ko fonkoon sunnas rasulullahi sallallahu alayhi la woon Cheikh Mourtada ko tegoon tànkam ci lislaam la di ko jëfe di ko waxe itam Cheikh Mourtada ku maytu woon ay caaxaan la ku maytu woon am pola ku maytu woon mboranti la daawul yar kenn sax ñu lay séen ci mel noone ku bëggoon yàlla la bëgg gu wér ku bëggoon yonent bi la bëgg gu wér ku bëggoon sëñ Tuubaa ba yemaliwu kook dara la xamutoo nit nooflaay àdduna ma mus ci am nooflaay àddina mus ci jëmmam ji da ko jàpp rappal ko rappala rappal ba boo ko xoolee di ko yërëm waaye saa yu jegee jëm ci boromam mooy gën a sawar ndaw lu mën a doon ba fii nu toog nii njabootam gaa ngi nii di xeñtu ay jéegoom ak di ko topp taxawaay bu rafet ba nga xam ne moom la amee woon taxawaay bu rafet ba nga xam ne moom la amee woon loolu waral na réew mépp tey boo fi demee di nga fekk résultant yi nga xam ne amee na ko foo taxaw fekk fa ay daara ay jànguwaay ay boroomi xam-xam yoo xam ne koo tudd mu ne ci économie laa génne loolu wane na ne lam doon liggéey itam suñu borom defal na ko ci ndam lu wér am na ci tawféex bu wér a wér a wér kon sëriñ Cheikh Oumy Mbakke bu jëlee bis bi tuddee ko ak Cheikh Mouhamadul Mourtada ba noppi sëriñ Fàllu moom sëñ Mourtada ñëw loolu daa doy sëkk ñu ne kii toog njabootuk sëñ Mourtada la comme ko tudde sëñ Fàllu mii waajur sëñ Cheikh mii nga xam ne mooy woote bis bi loolu bu ñu bëgg na wax ci relation yu doy na sëkk ñu ne sëñ Fàllu ku bëggoon njabootuk sëñ Tuubaa gi la ku fonkoon njabootuk sëñ tubaa gi la te lépp bëgg sëñ Tuubaa ku tegoon mës la yemale lu tax ci sëñ Tuubaa ak dara loolu moo waral bëgg gi mu bëggan sëñ Murtada ak fonk gi mu fonkoon sëñ Murtada ak fam ko tegoon boo demee kër sëñ Fallu fekk fa sëñ Murtada boo demee kër sëñ Murtada fekk fa sëñ Fallu sëñ Murtada itam topp ci gannaawam sëñ Fallu di kilifaam mu jël kilifteefam jox ko te mësu koo génn mësu koo bëtt senn saa ba tey jii relation boobu des fi kilifa yu tàdd yi nu fi dese di ko topp di ko topp ba mu ëgsi fii yàlla na bis bi yàgg am lool